dalen ak jamu, miri produk sekur supreme. miri usman Sonko ak mambaynya. Mbaye dinañ ko xolat le 4 janvier 2024 ginnaaw biñ ko dané juroom benn weer kaso yum dul teud mu def appel ñu deggal ko laaj bi nga xamné nak moy sampo moy ndax bu mambaynya, nya amendam état dina jëfëndiko àtte bi ngir Ousmane Sonko baña bokku ci élection yi ginnaw bi ñaari tribunal yi sakko ñu delloo ko ci liste électorale bi ci fatali 30 mars 2023 lañ ko daan ñaari ati kasso ak 200 millions yo xamne daf koy fay ki di Mambay Nia le 8 mai 2023 ñu yokk ko bu benn weer yoo xam ne du ko tëdd moom Ousmane Sonko mu mel ni nag dossier Ousmane Sonko ak mam Mbaye Niang dañ ko indiwaat war ko àttewaat le 4 janvier lañ jàpp dat bi nga xam ne nag si lañ ko wala àttewaat mu nekk loo xam ne daal doy na waar